bi pourtant for pourtant wax naa la ko de. kala mag jeex jaam jeex jaam man booy boobu. jeex jaam boobu dëgg ko ma tàngoon ko ma. booy dafa galaa de. waaye jeex. def jaaw. non waaye dëppul ma leexu nepp jàmm waaye jeex. jeex yow heure bii war na la fekk fii ngay nekk fii di nuyu doon. liggéey nañ dem nañ dem gën ñu ñun ñu doo dem dëya mu buddi la buddi ñu galaa foofu nga jàpp jeex jaam nga xam ne yaa gën a jeex jaam. wóolu naa la de. jeex jaam jeexul jaam sax. booy ñoo gën a jeex jaam booy. dara du yëmoon mooy def suñu yaram. yàlla bu ñu teg gàcce booy booy suñu fayam booy mosuñu am ay affaire yooyu noonu. joxoon ñu dem liggéey fekkee mënoo bëree combat bi tamit nga jox ma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 bëri naa sax ñi nga xam te mbokk yi mën naa ne ay doomam ndax boo xoolee kii di Bébé Diène defe naa ne euh, mën naa ne doom la ci Baye Mandione di ko encouragé bu baax a baax di ko wax ne nag làmb noonu la ndax Baye Mandione boo xoolee bokk na ci mbër yi gën a fair play ci làmb ndax Baye Mandione bëri naa King Kong Baye Mandione bëri naa euh, Bébé Diène Baye Mandione bëri naa Goro Sock koo xalaat Baye Mandione bëri naa moom Baye Mandione dem ba Gambie fekk waa Desane mu bëri ak moom dikk si waa Sénégal bëri ak moom defe naa ne mbër mu gën a fair play mbokk yi di ko jox Baye Mandione ndax saa foo ko fekk day kaf di foo di ree même ba ci biir làmbam moo tax ma koy encouragé bu baax a baax démb nag ku ne gis ne sorte bi nga xamante ne def na ko ne dafay bàyyi bëri waaye mbokk yi loolu neexul kenn waaye nag nit ku nekk comme li may wax rek nit ku nekk fa mu labee rek da xool foofu xëcc ci moom bu demee ba ne day bàyyi làmb xëy na peut-être am na fu mu ko teg bëgg nañ ci waxtaan ak Père Ousmane ñu doog a dugg ñu dugg si waxtaan bi nuyu naa waaw ñu ngi leen di fay ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant si yokk leen tànn si Euh, ñu ngi nuyu monde entier ñëpp surtout amateur yi làmb yi mbër yi promoteurs yi journalistes yi ñëpp ñu ngi leen nuyu parce que ñun tamit ci làmb bokk ndax moom lañ am surtout nag du nuyu caari gi nga xam ne tey fi leen fi leen dëkk mm-hmm. ñu gis leen stade ngeen ñëw nga ànd ak nga ànd ak ki nga xam te ni mooy Baye Mandione gunge ko ci làmb ji nga ànd ko muy bëre xale. bu ñëw gunge ko lan la lan moo taxoon gunge ko parce que nag gën nañ gis Père Ousmane. waaw non xam nga gëyuñu maa gis sax mais xam nga dafa am xale yoo xam ni dañoo am respect ci doomu aadama am cër ci doomu aadama ndax nit ki moom ci li nga nekk boo ci nekkee bu la ci joxee cër rek da nga ciy xar du bay njool nag day suñu rakk di suñu xarit di suñu lépp ñu sosoo man ak moom lool di partagente lu bari kon bis bu mu xewle rek muy jàmm muy leneen damay ñëw taxaw looloo tax keroog ñu gën kaa indi ci làmb mm-hmm. te bu ñu soñoon tamit caari gépp ñooy mobiliser wu ñëw jàppale si ko mm-hmm. ndax ñoo nit koo xam ne la bëgg na doomu aadama bëgg na mbokk bëgg na ñëpp mm-hmm. xolam dafa rafet laa biir parce que ku mel ni Baye Mandione tey jii bu amee bis rek te ñëppaa ci war a taxaw mais loolu moo ñu gën a poussé nag pour ñu ñëw jàppale Baye ñoon ci bis boobu waaw loolu moo ñu gën a poussé ñu jàppale Baye Mandione ci bis bi mais Baye Mandione keroog ku ko gis ni mu dugg see xam na baa Baye joon bëggoon na bis bi parce que boo ko gisee ci wàllum préparation mystique xam ne bàyyi ma ñëw uti naag bàyyi ma ñëw mi daan gis bi doon wax naan fonk ma gaalaaj damay dem ñu ñaanal ma rek ma ñëw bëri bis bi da njoon defet bi da koo bett. te même ñun ñi ànd ak moom ñëpp danoo bett. ndax xalaatuñu woon ne tey jii njoon dina ñàkk bis boobu. mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam. Euh, jour boobu yàllaa ñëw ànd ak bébé jën. ñu ngi koy félicité di ko encouragé bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moom tamit xale la am na avenir ci kanamam. njoon tamit mbër moo xam ne la tey jii mooy li nga wax rek Euh, bëri naa ku ne. ndax dafa fair play. day kaf di reetaan même groupe bu mbër yi mu bokk. day fair play kon tey jii buñ ko gungee ci làmba ji tey jii mu ñëw indi kàttan indi doole indi xam-xam indi social kon buggoon na bis bi. mais sunu borom moo ñëw bis boobu ni Bébé Diène mooy daal waaw loolu daal la sunu borom dogal. mais ñu gis la ci moment tuus bi moment bi bàyyi ma ñëw di tuus mu tuus ba ci yàgg xol bi sot nga wàcc. def lu rafet nga taxaw mu taxaw nga àndandoo njuumandoo lu neex moment boobu lan nga yëg ba à ce que nga nga nga ñëw feccandoog moom. nga njoon tey jii nga ànd ak sa rakk tey jii muy tuus ba si digg ba xëcc la ngeen àndandoo fecc day neex comme ni kay Kayre def ak bébé Diène tuus tuus mu neex loolu dafa neex parce que loolu cër la. nit ki boo ko joxee ci respecte ko rek am na foo xam ne boo fa tolloo rek loo def rek da koy def loolu moo waral ma wàcc man ak moom di tuus di njuug di def lu ne di jaabante guddi ak bëccëg parce que njoon moom ak a jaral la waaw mais moment bi ma ñëw ci mukaay bi di leen dëkk mi ko muy yow muy ma Mandione kenn nanguwul wax ñëpp dañ na dañoo noppi bugguñoo wax daal. waaw non fonkoon bis bi rek ndax njoon ku ko mas a dëkk micro même buy jaabante day waxtaan. Mm-hmm. mais ñun ñëpp ñoo nekk làmb ji làmbi tee la. Mm-hmm. làmbi noppi la. ba ba nga dem géew ba. Mm-hmm. nga def la ngay def. moo taxoon buñ ko bëggee dëkk micro rek may leen du wax. parce que xam naa ju koy joon day bu boobaa boo ko dekkee micro dina kaf ak yéen waxtaan ak yéen ci biir waxtaan. mais boobu dañuy bañ mu ah. bañ. Euh, débordé loolu moo taxul ñu téye que ni ko doo wax daal mm. waaw. mais ñu ñu ñu gisee Baye Mandione ci benn facette boo xam ne xamewuñu ko ci Baye Mandione Baye Mandione ñëw na ci biir géew bi am lu muy tàllal Bébé Diène Bébé ko mu yoraat sifflet du ko sifflet Bébé Diène Bébé Diène nangu sifflet bi ba tey Baye Mandione gis ñu benn réaction boo xam te def na ko mu mu mu ci boppam téye boppam ak ni ñu xamee ma Mandione. non Ndiol dafa sportif jour boobu mooy li ma wax rek ñu ñoo ñu ñoo ko téye ñoo ko taxaw loo ñoo ko téye ne lu mu la manti def bu ko lijjanti lu la ay supporter am mënta wax bu ko lijjanti concentré wul ci sa combat ba bëri jot nga bëri ci fulla ak fayda ba yàlla def li muy def moo tax ban ko dekkee micro ñu bañ ba mu ci géew ba bébé jël lu mu ko manti def baax na man mii samp naa ay ngeer booy kayre ñëw dindi ko après booy bi ñoo ne booy bi dindi ko de ma ne ko bul waxati booy kayre dee la wax père kayre ndax sa papa la. ci stade bi waaw ci bi moo tax. Euh, parce que Kayre bëri nañ man ak moom mais couleur sama digganteeg moom moo tax am na yoo xam ne sax ñu ma ko sama digganteeg moom moo tax bi làmb ji jeexee damaa dem côté que ñu waxtaan bi téléphone ñu waxtaan parce que lépp ci sport la. kon Kayre nag dafa parce que moom làmb ji làmb yëpp làmb revanche la ko defoon ndax li ko bàyyi mu ñëwoon daanoon mais moom dafa moom dafa moom dafa yónn woon combat Kayre. non revanche am jeexagul jaare ndax man ak moom bëri na man mii daan naa booy Kayre mu daan ma. njoon njoon non yow bàyyi nga yow moom bàyyi nga. Ah, kan moo ne war a tollanti suñu combat. non Père Kayre zibilé la. non Père Kayre même bu zibilé dañuy bëri troisième combat wax ak Kayre dañuy xam nga tey dama ñëw dama ñëw dama ñëw ci Bébé Diène bàyyi ma ñoon mais fi mu toll nii boo bu fekkee Bébé Diène daa jaan bàyyi ma ñoon nga bëgg a ànd benn revanche boo xamante ni bëgg ko bëgg ko mayaat loolu tamit père lool déclaration la. non dégg nga wax naa ko barki dem ma koy ma ne ko sama troisième combat man ak yow. mais li ma jaaxal mooy jéen euh, du bëgg jéen bëggul mais nee naa kay rek di revancement ak yow. troisième moom ñun solennellement dañuy ñaan jéen. <laughs> non jéen laay ñaan mu bàyyi paa bi ñu bëree moog mbañik ndax samay doom la ñu. fi mu toll nii bu jéen ak ak ak mbañik bàyyi woon paa bu ñëw yow ñeme ngaa simee ko. non dañuy dañuy sumee ko waat bëri waat troisième combat mais xale. mais xale yi li ñuy bëri nii. bëri la mais xoolal li Kayre daan bëri. xoolal li Ousmane daan bëri xoolal li Zallo daan bëri Rog Mbalax a Diop. Hmm? mais bëri yooyu da nga kaa mais est xam nga est-ce que xam nga ne père. Euh, Balla Gaye mën nañoo wax ne. ci ñi wane mën a bëreem yow ci nga bokk. waaw loolu man loolu wax ko avant wax naa leen ni ba ma bëree moom ba mu daan ma naa leen ni kii dina daan kenn ko du man bëri rek lay def dafa mën a bëri. moom boo boo booy bëree booy bëree ku mën a bëree sa mën a bëree day waaw mais loolu moo war a tey jii Balla Gaye ñu ne daa mën a bëri. Mhm. ndax fon jaar man ak moom. Mhm. du seetaan nga sama combat rek tamit. Mhm. seetaan nga ñaari combat yëpp man ak Kairé. fàtte naa benn bi Dakar la benn bi Ndar. na mag Zallo bëri mbalax parce que bërikat yi. ñoo mën a bëri seen biir bëri feeñ. mais léegi làmba social moo ci ëpp. kese tegtal kese tegtal ngay bëree fi mu toll nii. day gis xale bu summeeku sa cumukaay xale bu summeeku mu ni kii amul amul kàttan amul doole. Mm-hmm. amul xam-xam amul dara social la indi ci làmba pour daane ko mais jamonoy booy Kairé Exalo Ousmane Diop ah ñëpp tey jii tey jii bu nu revanche man tey jii da ngay gisaat bëre. wala da nga bëgg ba del dekkiwaat dellu si parce que booy des fois dañuy gis mbër mu simee ko père mu leer na ne xoolal simee ko mu leer na ne kay tey kii décidé wul ne nii la war a andiwul dara tey. non loolu day am. indiwul duñ indi dara. tegtal kese la ñuy topp ci làmb ji. kese kese kese kese kese mais kay rek foog ñu revanche loolu mënta ñàkk. non kay man tamit man. tamit que père tamit ni mu ko gisee. xam naa ne moo ngi entraîné. non man gis naa ko muy entraîné buntu këram dem naa këram. Ah. gis naa ko muy ko kurus gi daw <laughs> la bu la bu la si woon moo moo kay nag moom sama sëriñ la. Ah. Euh, sama mbokkam taalibe Cheikh mu baax la wax fa dëgg yàlla dañuy déggante di tooñante damay dem këram di ko seeti xam nga mais lépp espoir ak a waral ndax sport dafa war a boole war a tàqale parce que tey ji seq nañ jàmm joo xam ne man ak moom tey jii am na loo xam ne xajatul suñ diggante maak moom parce que ku baax la tey jii euh, nee naa ko keroog bi bi bi booy bi daanee bin ko tante man moom di waxtaan naa ko yàlla la lay fay sa xol li nga ñàkkul ci làmb yëpp yàlla la ko say doom indil parce que kay rek ñëpp la seqal jàmm ak salaam ndax déggante naa ak njoon moo na bàyyi ma njoon ndax moom bàyyi ma njoon tamit dañuy déggante parce que kayre moo mel noonu man kayre laa gën a xarituwul ci mbër yi mag yu mag yi parce que moom ak a ji xam nga mais ku baax la daal ndax euh, soo gisee euh, keroog mu fonk bis bi parce que bu la dénkee nit dénkaane dafa foor te dañ koo dénk bébé jéem surtout nga am ay doom yu nekk ci yow. waaw mais ay waaw mais am na ay doom yoo xam ne tey jii euh, mañik ma nga fa mm-hmm. Euh, mm. Diène ma nga fa te Diène am na combat mais def fa dafa tëyewoon. bis booy bi ba noppi booy bi tuddee boppam bébé waa waaw bébé Diène. Mm. parce que wax na dëgg kon looloo tax kay war cee rey boppam war cee sonn ndax tey ji bu tourné jàppale doomam kese bàyyi yeneen booy mm. su boobaa équipe bi mën naa am jafe-jafe. wala dara xew. mais bu ñu yëkkatee nit jox la da war a xar sa tànkatu bay di ngay mer si sa doom loolu nga war a mel si moom te noonu la mel ci bébé Diène xam naa ne du leen dégg ci dara nag. non Kayra moom kenn du ko dégg ci dara. Mm-hmm. Kayra kenn du ko dégg mikoro mu wax lu bizarre comme Ousmane Diop wala leneen ak leneen. Mm-hmm. non moom naturellement day wax li nga xam ne moo nekk jeex na mm-hmm. waaw. leen balaa ngeen jël dañuy nekk di la dawloo di la dawloo mais ci biir làmb ji ci biir làmb ji ñu gis ki nga xamante ne nii mooy Baye Mandione est-ce que noonu ngeen ko andee woon mu bëre ak bébé Diène. waaw ñun de bi ñu wax dëgg yàlla ku nekk sa bàmmeel ñu ñoo ne que làmb ji làmb taxaw la xaar bébé Diène mooy xale mooy xale ndax moo doon ut parce que yow làmb ji amoon lenn loo ciy prouver mooy nga nax ka daan ko duma ko lan ka santoon. bu mu xeex ak bébé xeex ak bébé jën duma ko mais njoon ci biir combat bi euh, njoon avant combat bi sax loxo bi dafa dagg. loxo bi dafa dagg. manu cee xeex xay na tey ji boo ko waxee tey ñu ni li defet moo li defet bi a tax mais defet am na bébé jën daan na bàyyi ma njoon jël bu set wax fa dëgg yàlla. loolu Ndiaye di wax ne uude lu mu wax ci béy bu feebar ñooy dem. waaw très bien xam nga pour nit ñi koy dégg daal. ndax man li ci mën a wax bari na ndax man bi muy dagg sama kanam. bi ñu koy fajal loo xam ne tamit sama kanam ndax bu ko médecin gisoon amaana tey mën naa bañ a bëri. xam nga mais lépp ci jomam. ak ci fulaam day bëri. bi mu demee tamit nee nañ ko taxawal xeex ak booy bi amul songoo tey. mais nag sunu borom moom dangay ngay bëgg li mu def la li mhm. ndax li ko soob rek moom lay def. Mhm. kon dañuy jël la wekk ci loxo sunu borom jour boobu euh, euh, euh, Baye Mandione ndax ñàkk ñàkk na daal mhm. waaw. mais ñu ci bàyyi doon wax naan Baye Mandione préparation bi dafa des lan nga leen wax parce que nit ñi xam nit moom fii bu daa xëy ku ci nekk da ngay analyser nu la neex ñi ngi wax naan Baye Mandione préparation bi dafa des loo noonu nit moom boo nekkul ak moom doo ko xam. xëy na tamit préparation mën naa des loolu den ci d'accord Mm-hmm. mais tamit ñun ñi ko doon jege tamit di dégganteeg moom di gisanteeg moom mi nga doon préparé. Mm-hmm. àddina nag du lépp a mën a matale. Mm-hmm. ndax mbër da ngay am combat léeg-léeg léeg-léeg nga war a entraîné yi ñu oola àll ba nga dem wala nga dem seeti sëriñ wala nangam nangam. xam nga mais nag moom daal préparé na xëy na loolu la sunu borom dogaloon daal ci combat ndax saa boo daanu nag. ñu indi beneen inversion. ni daawul entraîné wala nangam ak nangam mais. ku jël xaalis jàmm da ngay entraîné ji wala boo ñëwee booy yi dafanteeg yow ku la de rek avance mais c'est normal mais njoon ku nekk xam na ni bisab keroogam bii gëñ ngeen kaa gis mm-hmm. gëñ ñoo gis njoon mu ñëw tuus tuus mu ndaw taxaw manifesté wul deful dara taxaw bëre di xaar Bébé Diène mm-hmm. njoon ku masaan arbitre fiir sa kaw lay daal ndax du arrière xamul arrière mm-hmm. xamu ko ñu ñoo ko santoon pour mu taxaw bëre Bébé Diène te lan ko santoon tamit def na ko teye na ci làmb def na mais yàlla ñëw daal waaw Euh, mais bi bi bi loolu jàllee dañoo xëy ci suba ga gis bàyyi mu ñoo def déclaration di sant ak di gërëm ah, di ñaanal képp koo xam te daan nga sonn ci kayam képp ko daan ñaanal ak ko daan sonn ndax yi ndax moom lépp def déclaration avant muy wax sax nit ñi jàpp na ñu bàyyi mu ñoon dafa bëgg wax ne day bàyyi mais effectivement mu ñëw ci loolu ne dafa bàyyi bëgg naka nga déggee loolu. waaw wax dëgg yàlla de dimanche la bëre. man hmm. tëkkee ngembam ba pare daal waxtaan dem ñibbi ba ma xëyee suba teel huit heures kër la fekk. ci la ma wax lii nga ma wax nii nii lay wax ba nga bàyyi bëri. Mm-hmm. ma ne ko su ma sañoon su sañoon doo ko déclaré doo da ngay bàyyi bëri neen damay toog noppaluku. Mm-hmm. ñu xool ci loolu nga ko wax waaw non laa ko wax. démb ci suba lan toog ma ne ko da ngay déclaré ni da ngay toog noppaluku. Mm-hmm. mais bul déclaré bàyyi bëri te njoon tey ji bu ne bàyyi na bëri am na ñoo xam ne dul ko ko ndax moom genn wàllam moo ko moom li ci des nit ñee ko moom. Mhm. te dafa am ay soppe ndax njoon bi mu daanoo démbal la su lay soog a gën a xam ne nit ñi bëgg nañ ko. ndax am na ñu ko fekk ci biir otaam ku ñu bari ñoo xam ne dañuy génnee seen xaalis di ko jox. ne ko ba la topp ba léegi teelal nga teelal teelal teelal ma sa kontaan ndax su meeku nga am na lu nekk ci yow. Mhm. kon bu déclaré dafa bàyyi bëre xëy na ndax mbër daan na wax bàyyi na bëre ba ci yàgg duggaat ci làmba ji. mais nag dina toogaat ak famille waxtaan. kon kon kon su ma déggee ni ngay waxee daal Njoon dafa teel a wax ba pare est que lii du ànd njuumte parce que est-ce que teelu ta wax. waaw non teel na wax ndax man tamit la ma ko waxoon bu ko defoon dama ne ko woon mu déclaré day mm-hmm. day bàyyi bëri. mais la ma après la ma expliqué yu xóotu xóot yooyu wax yi man ak moom la. Mm-hmm. am na yoo xam kenn du ko mën a wax. Mm-hmm. day dem balaa fee da ngay mujj topp ci moom li muy wax ni pour mu bàyyi mooy tax mu noppaliku. parce que tamit nit moom. Euh, la koy màtt ci yaramam moom moo ko xam. man mii tëdd fii. li may màtt man maa ko xam ku ma ko lu ko xam. waa mais ci biir yi ma expliqué yëpp li ci laxasu lépp dafa bari. te njoon day nit koo xam ni euh, waru woon déclaré sax naa bàyyi na bëri parce que li topp ci ginnaaw am ñoo bari parce que ñi ko topp bari na ñi ko bëgg bari na. làmb da koo bëgg ba tey. non làmb ñoom ñoo ko bëgg ba léegi. barke El Hadj Mari làmb dañ ko bëgg ba léegi te am na ñu ko bëgg ba léegi. est ce que am est ce que xam nga ne am na xale yoo xam ne bëgg Baye Mandione rek féetal parce que Baye Mandione bëgg naa ak Modou Lo Baye Mandione bëgg naa ak Gris Bordeaux Baye Mandione bëgg champion yooyu yëpp munoo jot ci champion boo bëgg Baye Mandione rek peut être dafa mel da ngay atteindre sa objectif. gis nga Baye Mandione euh, ñooñu ngay wax ñëpp mu bëree loolu moo tax sax amul xaalis. Hmm. bu fayee ko day maye. waaw moo koy wax. non day maye. barki Cheikhou Tidiane. day maye ku nekk sa bàmmeel. Hmm. tey jii bari na mbër yu nekk caari gi ak ñeneen ak ñeneen. Hmm. mënuñoo waat ci baay ma Mandione ñu lekkuñu ko. ak yeneen ak yeneen bu rombee fi ak otaam xale yëpp dañuy màbb topp ko day mujj taxaw wàcc dugg ci bitik ku nekk li nga bëgg mu jëndal la ko. moo amul xaalis xolam moo xolam moo mel noonu. Euh, joxe boo ko tàmbal sa si ndaw boo màggee doo ko def di nga fa waaye ku mel ne Baye Mandione nag moom exemple la ci biir Caaroy ci biir mbër yi tamit. ndax te ji ñi ngay wax ni ay Modou Lo Ah, ay bébé Saloum ah. ku ne bëri naak moom ku ne ku ne ku ne ku ne kon moom gàcce ngalaam parce que def na carrière ndax njoon tamit nañ jàpp ni da daan ñëw indi ñu ay ndam ñuy bégee di kontaan di daj lu nekk tey bu mu daanu rek ku nekk yor sa làmmiñ commencé di wax loolu baaxul làmba daan ak daanu la ak niil looloo fi am mën ngaa dem préparé wu bay bëgg a dee indi kattan gu bari indi sëriñ su bari ba kii ba ni kii kenn du ko daan tey kenn du ko jàpp ci ñu yow yàlla weddi ñoo ñëpp. saa boo xëyee dimanche làmb am benn sëriñ foog mu wax lu loolu. ana tey ngay ànd ak ay sëriñ ci biir géew ci biir làmb ñu assuré seen bopp nga ñëw ñu daal la nu ñuy def. du am gàcc man moo tax du ma yóbbu sëriñ ci làmb. doo yóbbu sëriñ ci làmb. non indi ànd ak sëriñ ci biir làmb. du ma ko def. naka nga daan def. dana may dem uti samay sëriñ ñu ñaan ma. est que est-ce que daan nga ma gis man ma takk lu bari ma ñaari fiir laa takk samay loxo def la may def la ci des maa koy àggali li ci des damay jël ko wér ko suñu yoxu mosuma am combat di nëbbu wala may def la damay xëy di taxawaalu ba huit heures ci suba ngembali may li ma daan ngemba man maa xëy suba teel dem marché jëndal ko sama bopp parce que fii yàllaa fi ne. kon ni nga gis mbëy di def am komba baare seeni koñ ah di daw nit ñi. di andi ay sëriñ di ñuy def yu ne naan boo ko gisee naka la lay def. mais gars yi ngi baare seen i koñ ci teewul da lay daan. na ci de. loolu <laughs> ay problème ci koñ bi. koo fi awa. danoo war loolu làmb. làmb biir géew la. Mhm. làmb la laa defara stade pour géew la li ngay def def ko sa biir kër. damay dégg mu nit ñi di wax naan lii daan mbër du ñëw stade. non mukk lii daan mbër du ñëw stade. lii daan mbër du ñëw stade. lu leer laa wax mel ni midi. parce que ñun yàgg nañ ci làmb daan nañ préparé ba pare jël yëpp ni ko fi ñukk te lu bu xasee génn luñ fàtte duñ ko jëli. Mm-hmm. dañ naan bokkul ci làmb ji. boo xasee génn daal lu fa des moom moo la fa des pare nga ca. la ca des yaay dem mottale gi yow demal nga entraîné ba am doole. Mm-hmm. di lekk ba suur mën a bëri amu fit sëriñ tuuti la lay mottali boo amee ñaanu waajur sëriñ tuuti la lay mottali li ci des yàlla moo fi nekk kenn nekku fi. ku am yàlla ku ñàkk yàlla la kon nan jël wekk seen xol suñu borom mais léegi da ngay gis koo xam ni daanaka buy préparé pour bëri rek li muy teg ci diggu géew bi bitéel yoo xam ni takkaay yoo xam ni. da nga naan kii tey lii fan la koy sottee ko sax mais te terew dan lay daan. dan lay duma duma yu métti nga weddi say sëriñ fekk say sëriñ aay nan de mais yàlla moo nanguwul. Mm-hmm. Mm-hmm. kon noo xale yi tourné waat dem entraîné jàngi ba respecté seen mag. Mm-hmm. jox seen i mag cër comme ni Boy Kayre def yorob écurie-am xale yi jox ko cër. Mm-hmm. mu jiite leen tey ànd ak ñoom ñëw tuus ba xol bi sedd mu toog encadré mbërëm mbërëm daan mu kontaan dem ñibbi. même bu ñu ko daanee sax da ngay bëgg. da ngay da ngay parce que dafa neex. Mm-hmm. dafa neex tey jii xoolal tey Bébé Diène ba mu tuusee ba ci digg ba Kayre ànd ak mu tuus. dafa jooy dafa jooy. Ousmane Diop njoon fecc ba ci digg ba jël si ko ñu ànd ak njuug mais dafa sedd xol dafa neex. nga bëgg a dem mën na la di dellusiwaat. billaay wallaay dafa neex. non njoon moom yàlla na ko suñu borom defal jaam. lan ngay wax waa làmb. waa làmb pour daal li ma leen di wax mooy seen seen gën a amaat taxawaay ci làmb. ndax euh, supporter li ñuy def baaxul ci làmb. supporter yi waaw. comme lan bu nangu ku daan sa mbër da nga daj jàll loolu daj sànni moo ne sa mbër daan daal. Mm-hmm. kon sa mbër bu ma sànni daan nooy def. kontaan si biir dem kontaan si biir dem. Mm-hmm. léegi ñu daañu la nga daaj yi seize. mais est-ce que nekkul Sénégal dañoo xamul espoir. seize leen defal dama leen war waruñu ko fi a def comme démb ñoom ni mu meloon. Mm-hmm. loolu leen war a defal kuy ñëw boo gàddoo si njëganaay boo ñëwee toog. xamante dëgg chinois bi ñu tabax bi ñuy tabax stade bi ñoom ci seen jikko lañ ñu ko lañ leen ko defay lay mais defalee ñu ko suñu jikko. parce que loolu ñëw war a waxtaan ni que Sénégal xamul lii. waaw <laughs> xamul lu rafet. <laughs> Ah. xamul lu rafet. defal leen ay karo ay ay ay ay ay karo rek mhm. kuy ñëw indi sa naay toog. Mhm. jàpp sa njàmm. mais looloo am ci làmb. Mhm. et puis man dama daan wax naan fi ñu def làmb du palaasu làmb làmb jëm ñaa leen ko waroon yóbbu ku fa agressé bala ngaa ñibbi si ñu rey la nga dee benn yoon mais làmb ji fi mu toll nii xat na métti na ci amateurs yi seetaan. ba day yàq day yàq image yu làmb. mi ngi yàq image yu làmb lu bari xoolal tey nga xoolal tey keroog bébé jën ak bàyyi ma jën bi bëree pare ñun ay lakkar monsieur yu moo tax génnuñu. weex suñu bëti jooy gaa yi dugg ci oto jàmbur yi di dajji pour leen ay kilifa bàyyi seen kër ñëw toog di béggee ci làmb te làmb ay kilifa kese kay seetaan si. Mhm. amateur yi fii ñëw yëpp ay kilifa la lañu. mais xoolal kilifa yi ñëw tey bàyyi seen njaboot seen lépp seen kër ñëw seetaan si gaare seen oto ñu def leen naka su noonu bu yàggee est ce que ñoon dootu ñëw ay saat mhm. kon nan jubbanti ko waat daal nan gën a waxtaan ndax làmb rek lan am mhm. làmb tey ji buñ ko arrêté woon tey ji booy gànnaar gépp agressé la ñu noonu kon gën a góorgóorlu si làmb daal waaw gis ngeen mbokk yi defe naa ne waxtaan bi am na solo comme ni ma koy waxee rek père lañ seet woon dañuy am fierté euh, ñëw toog ak moom waxtaan ak moom parce que lu ci bari tamit euh, duna ko xam wala dañ koy bëgg a xam te duñu am kuñ ko nettali waaye gis nañu ni mu ni mu ko faram fàccee waxtaan bi am na solo di ko jaajëfal bu ko neexoon tamit ñu seet ko mu ne doo kii mais xam nga des fois dañuy jékki-jékki rek déglu si këram mais kontaan nañ ci moom bu baax a baax defe naa ne kàddu yu mujj moom defe naa ne mat na. waaw non mat na moom nuyoo ak euh, gërëmaat rek. di leen gërëm yéen tamit bu baax a baax na yéen tamit kenn gënu leen a sonn. da ngeen daw kër mbëri am na mbëri yoo xam ne moom bala ngeen leen a gis. Mhm. da ngay sonn sama classe gi. jaaw da ngay oto ñu naan la maa ngi dem fii maa ngi dem faa. di gërëm te waaw di gërëm tamit waa caari géej yëpp di ñaanal mbëri caari géej yëpp surtout ñu fi am combat yàlla leen yàlla may ndam ñaamagul combat yàlla may leen combat te gën a saafoon te gën a booloo gën a nekk be bokk nay bokk baay àddina bu fekkee ni am na ñoo xam ni yéen mënoo leen a bëre mënoo leen def dara lu ànd na rafet rek ñu ànd ñu mën tax foog ñu ànd kon na rafet rek maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mbokk yi di leen jox di daje beneen yoon ci Kewel Info jaa ngeen jëf aarama booy bravo for pour wax naa la ko de. kala mag jeex jaam jeex jaam man booy boobu. ko ma tawoon ko ma. booy dafa galaa de. waaye jeex. ma neexul nepp jàmm waaye jeex. jeex yow heure war na la fekk fii ngay nekk fii di nuyu doon. liggéey nañ dem nañ dem kër ñu ñun doo a dem dëya mu buddi la buddi yu galaa foofu nga jàpp jeex jaam nga xam ne yaa gën a jeex jaam. wóolu naa la de. jeex jaam jéegul jaam sax. booy ñoo gën a jeex jaam booy. dara du yëmoon mooy daw suñu yaram. yàlla bu ñu teg gàcce booy. booy suñu fay booy mosuñu am ay affaire yooyu noonu. jox ñu dem liggéey. fekkee mënoo bëree combat bi ma ko.